am na benn canal bu ko nekk boo xam ne mooy bu doon nii la def mooy tane voilà léegi xoolal pont bi descente bi mu ne xoolal pont bi descente bi mu a ndox yëpp bu ñëwee wàcc ñu doon dimbali indi benn loolu léegi ah. Lonase ñaa ah la minute qui suit mu ñëw gaañ. kooku yàlla kii moo ñu dimbali amul keneen. kon Alioune Niang à la minute bi fii mu ñëw même su amul ay moyens dina indi ñaari oto ñu yendu ko pompe suba ba pompe yóbbu ko très sérieusement. bi may wax loolu moom nekkoon sax quoi gisuma ko sax yàlla xam nga ñëw seede ko quoi gis nga lu baax moo am solo man bu ko wax gisuma ko sax ah sincèrement par la quoi vraiment. est-ce que loo mën a wax daal si waaw délégué. waaw waaw waaw. non si si si si waaw waaw. ça c'est les ouvriers. deuxième chose mooy anarchie bi am fii aussi. gars yi ku ne ku neex waay teg table loolu war ngeen ci wax. loolu tamit monsieur le maire. fii war nga ci wax aussi. ku neex waay teg table lii aussi. fii am na anarchie bu doy waar. ah fii dafa doy waar quoi. vraiment xam nga ni mu mel nii xam nga mënoo defar tali bu mel nii. waaw waaw c'est ça global bi teg fi ay mbaar ak ñeneen. lu amul xalaat boobu daal ñun duñ lay fàttali lu lii la sa métier la bul xool lu neex bul xool lu neex nit xax sa xam-xam la génn na su ndox mi ak situation yi mu ne génn na su ndox mi rek lan mbokk internet Diassigui TV à fële sa Rufisque gis nañ ni maire Rufisque bu bees bi dafa wàcc tey sur le terrain dëkkandoo yi nag ñu ngi wax seen droit ñu ngi kaas seen droit ñu ngi wax ni inondation yi dañ leen di sonal wax nañoo ak maire bi d'ailleurs maire bi nee na dina leen dimbali n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification Diasigi TV